وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي asalaamaaleykum aleykum rahmatulahi taala wa barakaatu jàppandal OYEL moo leen di yëgale station bu bees bi ñu leen fas yéene ubbil ci sorti mbir kilaan bi soo bàyyeekoo Kaolack ci route nationale numéro 1 bi ñu jàpp ko dimanche te pour le 23 juillet 2023 di station bu mucc bu ñu leen defaral ngir répondre à vos besoins yéen ñi bëgg a jël carburant moo xam diesel la wala super di essence bi gën ci seen moteur yi jaar leen ci jàppandal OYEL bi ñu leen ubbil ci mbir kilaan am nañu fa service lavage ak entretien am nañu aussi boutique jàppandal di ngeen fa fekk bépp produits alimentaires ci ay prix yu xéewale nga doxantu ca wet ga fekk fa sa transfert d'argent mën a yónnee ak jot xaalis ci biir réew mi ak ca bitim réew en toute sécurité jàppandal Royal Mbirkilane ubbil nañ leen fi aussi boulangerie ak pâtisserie boo xam ni yu neex a neex ngeen fay fekk yéen ñi voyager jëm Tambacounda Kaffrine Kédougou wala Mali mën ngeen def seen escale ci Mbirkilane ndax am nañu fa restaurant ak fast food bu leen di defaral ay plat yu mucc ayib ngeen mën consommer sur place wala ngeen emporter su leen fa waxtu julli fekkee ngeen mën a doxantu ba ci julli dooru continuer seen voyage jàppandal Oil am nañu personnel bu qualifié professionnel te mën seen liggéey jàppandal Oil mi ngi ci sorti Mbirkilaan bi soo bàyyikoo Kaolack ci route nationale numéro 1 bi muy nekkee à wala sooy dugg Mbirkilaan bàyyikoo Tambacounda sa gauche la pour plus d'informations mën ngeen woote ci 77 604 83 38 ak jàppandal Oil seen léppay jàppandi